biir làmb di ci bëri te mm. entraînement reer guddi mm. def leen problème mm. bu fekkee bu nu bëree ba pare du nu am sax lu nu mën a jëndee dara mais yëf jar na seetaat la foofu la question bi voilà léegi dama bëgg ñu indiwaat combat diggante jaagar jaagar ak cartouche de ce fait que cartouche moom commentaire ñu combat bi après ñu ñëw techniquement moom nan la ko daanee jinne yi acca indi leen combat bi bu julli yi leeral ah, daan Pàcceer ndax d'accord nga ñaari xale lañu. waaw coow bari na. waaw moo tax ma ne arbitre yi ñu mën a àtte ñoo ñu gën a jege woo leen ñu ñëw bëre mënoon na am. ku julli yi leeral li ma lii li jaaduwul ay. bu irrégulier bon soxor avertissement ñaw. cartouche jaagar jaagar. jeex na jàmm jeex na. laay laay la laa door na ko mu daanu. wuy sama dana ko rey. wuy yaa cartouche dana rey doomu jàmbur. cartouche acca commentaire ma combat bi waaw. waaw bii bon dañoo dóorante ay coups. Hmm? waaw ma ko coup fii ma jël ko. mais fii est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que mbot mi nga ko doon bot ñor na. waaw mbot bi bon parce que déjà man samay samay supporters. Hmm. nga samay fans toujours dañ may wax loolu quoi. Hmm. man ki nga xamante ne moom laay roy muy Cartouche bu Nioro. Hmm. lii kum ku mës a def noo tollu mu daan la lii nee naa bu mu ko defee Yékini sax. damay am dara. mais yootu la mais mais mais xaw nga xaw xaw nga koo raté. waaw mais dama ne la. may laaj ci nii. parce que gal la dugal fii. di xattar bi. Mhm. mais daf ko dindi. Mhm. loolu est-ce que yow bi ngay galgal sori woo. parce que galgal bu jigéen boo jàppee galgal bi dafa sori. xam nga lii ñu ngi koy wax déggerti. yéen ñu ngi koy wax déggerti. déggerti. déggerti yéen la ngeen koy wax galgal. Hmm. ñi di koy wax roq. Hmm. mais lii déggerti la. da ngay da ngay déggerti ba pare. déggerti mooy lan. ban ban ban ban baatu olof la. déggerti waaw déggerti xam nga ñun côté Saloum. ah Saloum Saloum waaw waaw waa comprendre nga ñun côté boobu ñun. lamb nu ñu dundee lamb peut ak fii bokkul. waaw baat yi. voilà baat yi bokkul. baat yi parce que tey jii nii loolu ma ko def noonu dama ne su ma ko def noonu champion bu ko ëpp su ñoree day am dara. day waa mais ñorul. waaw ñorul ñorul c'est ça ah, mais tey samay samay samay samay fans. samay supporters yi bu ñu buñ buñ tiit si loolu heure bu ko dugalee bu buñ am lenn loo ñu lu ñu tiit parce que mbër bu nekk am na point fort di nga am 5 points forts mais di nga am point fort boo xam te ne nii moom mooy moo nga mooy mooy point fort boo xam te ne nii. moom nga gën a wóolu. lan mooy sa point fort. non man sama point man am naa point fort yu bëri. Hmm. mais tey toujours su may bëree. bi dinaa tante bii su ma gisul dara jëmal liggéey leneen parce que tey ki nga xam ne moom laa jox sama bopp tuddee ko sama bopp cartouche bu ñooro kii bu ko nu mu mbër mu mu saan def neeg teer. man dafa am question dafa am lu ma jaaxal ñëpp xam nañu ni moom bokk na ci leaderu dóor dóoraat bu sos mais man démb dama gisul kenn ci waa dóor dóoraat ñu ànd ak moom. ba man ngi koy wax Pàcceer ne ko mais man dëgg la Garga am na combat mais dama gisul kenn ci waa Dóor Dóoraat lan moo xew. waaw mais dara xam nga man moom dama gëm sama bopp quoi man waa Dóor Dóoraat bon am na ñu ñëw Garga dafa nekkoon ci combat Garga moom heure bu amee heure bu amul combat moom comme muy xale bu ndaw dina ñëw sa kër bu mënee dem stade dem stade conseil lu mu lay conseil leneen lu si des toppatoo ma ko. man dama gëm sama bopp. école de lutte bu kenn ñëwul ma jël booy nekk sama koñ soo leen bul nga ñu dem stade waaw. xam nga xam nga xam nga loolu du tontu. xam nga du tontu bu ñor. <laughs> <laughs> kon cela laa dire que da nga jóge Dóor Dóoraat wala lan moo xew parce que man ah. xam naa Dóor Dóoraat. Abdou Aziz xam na Dóor Dóoraat xam na ñi nga xamante ni ñoo la daan gunge démb man ñi la daan gunge démb ak barki démb dama leen a gisul ñu gunge la. loolu moom loolu lool laaj. waaw ah, mais comme gisuma sos. gisuma gisuma ñu bari ñu la ñu la ñu la doon à part jëf jël gisuma fa kenn. loolu mooy loolu mooy laaj maa ngi maa ngi koy gërëm bu baax parce que jëf moom ku am combat mu taxaw la comme nu muy taxaw ku mu bokkoon ndey ak baay moo tax man bësam tamit dama si dem ba jeex am na ñu ñëw mais dañ leen classe wut si kaw si biir kii bi euh, si si ñu war a sol blouson ci kaw stade bi. Hmm. mais si côté bi waa jo mu tudd léegi. ne musul ñëw sama combat musu koo gis sama combat musul ñëw musuma am combat mu mu ñëw sama combat. kan. Zos. Mhm. musul ñëw sama combat. lu waral loolu. moo xam. te mu nekk leaderu leaderu dóor dóoraat. dëggoo man lu ma wax sànq man dama gëm sama bopp man boo ma yëgee ma yëg la boo ma yëgul yëguma la. tu as vu kon waaw Lamine tu as vu que y a xam nga <clears throat> tu sais euh, li ma lay wax. écurie bu nekk école de lutte bu nekk war na am mag mag boo xam ni dafay am fu muy fu muy taxawee pour xale yi xam nga li mu wax léegi bu ma amul ñu ma àndal sax dem jël xale yi booy koñ bi sol leen blouson ñu dem. ça veut que y a un climat lourd à Dóor-Dóoraat uh-huh. le climat est très lourd uh-huh. li mu wax naan euh, daf la wax ñaari baat daf ni jëftel uh-huh. ni maa ngi koy ñaar fu mu dem a fekk ko wax la ba Garga Mbossé ku ñëw mu ñëw wa yedd la ànd ak yow waxul ñeneen ñi te écurie ba du ñaar ñooñu rek donc bu buñ fekkee dañuy def une analyse benn taxaw euh, seetlu moo di ci biir écurie yi dafa am problème Mm-hmm. problème yi nga xam li nga bëgg a faj ci biir écurie du mën faju mm-hmm. ndax bala muy mën a faju ñëpp bokk ndey bokk baay mm-hmm. am koo xam dañ koy identifier comme leader parce que mënoo nekk leader ci benn écurie nekk fa tëddali ténor bi xale yi fa nekk sax suuf di bëri te doo leen fekki te nga am ci biir ñoo bokkal ndey ak ñoo xam ni bu ñu bëree nga ànd ak ñoom xay na mais c'est-à-dire je mais dire incrimé ma foofu dama bëgg dama bëgg ñu xaabaabal tuuti ñu bañ a xaabaabal da ngeen am problème yéen ñaar non problème am na problème ñàkk na parce que tey jii am na lu nga xamante ni tey mu ngi sama xol loo xam ne neexul man dama fi jóge dem ba Gàmbi bëre fa ñib si am lu ma naqari li ma naqari nag bis bu wax jotee. mais lan moo la lan moo la naqari. loolu tey non du ma ko mën wax fii lu lu jot lu jot rek yomb. parce que man tey alal du ma booleek nit alal. dañ koy bàyyi waaye ñuy judd fii ku nekk daf fi bàyyi alal man je pas égoïste sëñ Mbour ñaa wax naa ko nee naa ko boo ma ooyee ne ma bëre temps laa lay fay mu bëreel la ma affaire bi dama ko def comme plaisir bëre bi plaisir laa ko jàppee parce que dama koy dund parce que dafa nekk sama dret sama papa papam da doon bëre sama nguyu maar tey kon dama ko si donn sama famille papa maa fi doon bëri alal du ma alal du ma jaral mais bis bu wax jotee lu tax hmm? ma jar lool dina ko wax ci journal bu baax duñ ko bind. kon tu as vu que ni am na problème mais comme wax dafa jotagul. voilà ñun duñ la forcer pour nga wax loo xamante ni peut-être. wa wa wa waroo ko fi waroo waroo ko woon wax. mais ku xam euh, euh, cartouche xam ni waa Dóor Dóoraat gunge wuñ ko démb. non waa Dóor gunge nañ ma wax dëgg yàlla gunge nañ ma da si ciy bu si am kenn lay doon garga de sa sama combat yi bu jot day ñëw garga aw ma dara lu mu ko rapproché wax dëgg yàlla combat bu ma am da si ñëw taxaw mhm. mais combat am bi dama bëri samedi wala bëri dimanche du mën a ñëw mhm. mais waa dóor dóoraat jàppale nañ ma si kaw ba si suuf mais dafa am li nga xamante nii moo des te kenn ni la waa dóor dóoraat aw ma kooku mooy te kooku mooy tête de file bi kooku mooy borom dóor dóoraat ma parce que tey dañ ne nit oto oto bu oto oto boo xamante nii dafa paan suñ ko poussé mu tàkk tey nit buy son su bës boo du son su bésam mu xam boppam. à lan ngay tàggoo parce que waxtu wi. lu may tàggoo mooy di gërëm may jàppale bu baax. parce que tey su ma limee damay juum. Hmm. maa ngi gërëm waa Nioro bu baax. xam nga di gërëm waa Kaolack waa Ziguinchor di gërëm sama waa koñ waa Cité Fadia waa Nimzat waa Touba di gërëm ñi may jàppale. ki si mel ni Benza ak La Planète Gilles Samb eto école di gërëm bu baax Mandiaye Port di gërëm sama benn père bu baax benn père douanier bu ñu wax Masila muy père Massila naa fa ñëw suba nag. waaw préparé di gërëm bu baax sama école douane. di gërëm Balla waa di waa bu Siri Damel Mbacke Baare bëggu fàllu yaa ngi dégg di gërëm sama waa ko ñëpp. waa jërëjëf kooku kooku moo nekkoon kooku moo nekkoon cartouche kooku moo nekkoon cartouche bu dóor dóoraat moo doon jàkkaarloo ak euh, jaagar jaagar ba daan ko. Mhm. léegi euh, Aziz am xam naa dinañ dellu soit ci combat bi nga xam ni euh, moo doon am foofu ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye ndax am na benn xale bu fu doon bëre Euh, bëri bu doy waar ñu li ngay wax ni gàccee dóor ndamal daan faj na ko. parce que xale boobu waaw xale boobu dañ ko dóor dóor yu mitti mais moom moo daan léegi bëgg naa après ñu indiwaat combat bi le temps combat baa ngi nii la temps que le temps que ma koy dalal le temps que ma koy dalal. Euh, jërë jë jërëjëf jërëjëf euh, cartouche. ok mm. merci. jaajëf mais bëgg naa ñu dalal xale bi waaw. bëgg naa combat nañ ma jox Malick Niang. ok. waaw Malick laa soxla. loolu nga gis. waaw. ah nañu dem rek pexe. jara du ko ëpp doole mais Paco Cuuna ah, jinne la. est-ce que du ko fàqat. ragal nga loolu. ah Paco pexe lay seet nii de. muy yaay gannaaw gémmiñ nga ko Paco Paco naaw ci poxtaan bi. wala boo tee da ngay fàqat. ay ndeysaan pàcceer yërëm na ko dara ja na ko. muy yaay dara ja sang na Paco Jackson bakkan ba a ngay xelli. ay waay jara xaw na rey doomu jàmbur ji pàcceer. ah ni mu ko ziaree dafa metti. waaw waaw waaw deret ja sangu na ko mel ni xoola jara. ku suble ba dalaat na. xeexe mu fel loxo bi mu dugg ci biir mu jéggi ko laxasu ko. ndeysaan Paco dañu ko dóor dóor yu metti mu mel ni ko log sump. jara dafa soxora pàcceer. mais fi mu taxaw fi mu taxaw mais fi mu taxaw baaxul. song ko daw na song ko ndeysaan. Lamine fi mu taxaw baaxul jébbalu rek lay def. waa jébbalu la mu wóor. dëbb na ko naax moom Paco Jackson. laay laay la laa jara ngay rey doy laay laay la laa na ko laay laay la jara daan na ko. ma la waxoon. laay laay ci wet gi rek. laay laay la jara daan na Paco Jackson. ci wet gi la aw waxoon naa la bu awee ci poqutaan bi mu jeex. Paco Jackson jinne la. ci wet gi la aw. melul doon nit Paco Jackson jinne la. Paco Jackson jinne la. laay laay la laa. école de lutte Pape la nekk. allahu akbar. mais yow Paco. sa digganteeg jara. ñu bari dañ ne woon tey dalay rey. waa ñëpp loolu la ñuy wax mais xamuñu Paco Jackson sama turandoo laa niru Paco Jackson. kan mooy Paco Jackson. Paco Jackson Thiam coppati Sambey ah, Naar. bi mooy troisième. jinne yi ci régie bi euh, ñoom Maaw ñoom Vieux ak euh, ñoom seen dafa da affaire bi dafa garaaw ba xale bi dama ko invité. li tax ma invité ko damaa bëgg a ñëw plateau dafa xew léegi parce que mbër mu bëri mbër mu daan. Abdou Aziz danga naan damaa bëgg ñëw plateau mais yow laay bàyyee ak Paka Jackson ndax dañu ko dóor dóor yu mitti mais dafa daan am jom mais ni mu bëttee xale bi moo doy waar dama bëgg ñu indi image bi ma bàyyi la xale bi nga laaj ko. nga laaj ko waaw indil image bi. ah acca commentaire al Paco Jackson. mais fii dóor yi. waaw lan bi muy dóor nii yow lan nga xalaat te yaa ngi gaañu. waaw fii booba man maa ngi xalaat pour wër ngem mi ndax xam naa ni combat bi. Mhm. si lay jeexee. ci bëre ci bëre lay jeexal. mais fi mu jàpp nii sa ngemb nii. waaw boobu prise bi ñoragul. fi ñoragul ndax boobu mi ngi ma téye su ma bëttee daf may boloke. mais dóor yi mënoo woon a éviter mënoo jàpp ci loxo bi mënoo jàpp dara. non damaa am ngemb su ma ma bàyyee loxo bële pour ma jàppaat feneen day jafe. day jafe moo tax ma ne naa encaissé coup rek jàpp ku coup yi may rokos nii mënu mënu ma gaañ am naa ngemb te booba ngemb ngemb laay wër. ngemb bi moo lay may li nga bëgg. moo may may li ma bëgg. fii nag da ngay dem blessé na ko noo da ko blessé fan moo doon fan moo dagg ci yow. non sama bakkan moo doon naa naaj. dafa mel ni ku bori. non sama yaram moo tàng rek. non Lamine nuuru bakkan bu daggee. Euh. déedéet day sutiku bu baree bari nuur gee dagg non yaram bee tàng rek. acca <laughs> combat baa ngi noonu acca. acca ñu ñëw ci combat bi c'est important fii. waaw parce que ma gis ne xale bi ni mu ko bëttee dafa doy waar. Mhm. gis nga fii mi ngi dóor. waaw mais mën na dóor ah waa mën a dóor. non mën a xeex mën na xeex trop. waaye dara na fekk xoolal ni mu ko woowee ci kaw te ci suuf la jëm. xool ci laa jëm. waaw dama ko xool ci kaw jàpp ko. waaw instant maa ngi njëkkante ngeen gisee mu ngi dóor mais faale ma. waaw xoola gis nga bëgg naa ko. xoola Lamine Lamine génuflexion bi mu def. non bëtt baa garaaw. entraîne entraînement dëgg la def non c'est un fin lutteur. waaw ah, bëtt baa garaaw xoola. xoola xoola mhm. xoola. xoola xoola xoola bopp bi ni muy dalee xoola mhm. xoola Aziz bopp bi ni muy dalee. oui Moustapha Gueye numéro 2 daan na bëree nii. Ah? daan na bëtt nii. c'est que li ñu may wax baabu danaan ma chaque jour ndaama nga yow. ok quoi bi ci tànkam daa war a ñàkk. ok mais yow combat bi est-ce que yaakaaroon nga ni nii lay mel non man xamoon naa ne foog ma jël coup. xamoon nga ni foog nga jël coup. da nga ko préparé woon jël ay coup waaw loolu moom lu ma la woon. Mhm. Mm. mais bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama troisième combat troisième victoire. ah waaw ko ñaataat nga am. man maa ngi am vingt 22 ans. 22 ans waaw. Ah, kañ nga commencé bëre ak lan moo la dugal si bëre. waaw man maa ngi commencé woon bëre ma xel koom bu ñu dem xel koom nii si daara. ah Baye nga. waaw Baye Fall laa. Mhm. waaw. Mhm. d' abord foofu rek may may ma gërëm sama mbokk cantaako ni maa ngi leen siyaar bu wér mhm. cantaa cantaa mu mhm. noonu dem xel comme ni damay bëree di bëree di bëree di daan ñëw fii après gars yi commencé mën a bëree nekk si mbappat di daan di daan di daan di mbappat yi di daan di daan di dem rek après ba ci laa dugge arène nag kañ nga dugg arène maa ngi dugg arène deux mille bi laa bëri sa combat sa premier combat yaakaar la sa premier combat garga de ki di yan ki daan usu léegi. ok yéen ñaar la woon waaw après léegi léegi sa ambition gën na yokk. waaw gën na yokk nag. maa ngi xam-xam maa ngi gën si. Mhm. waaw lépp a ngi gën a dugg si maa ngi lay chance. Mhm. di la ñaanal yàlla defal la jàmm. ci li ngay wut ci làmb ji yëpp. ba ah, bàyyi la nga tàggoo. waaw d'abord kon maa ngi gërëm ñi nga xam ne dañ ma jàppale ñëpp. Hmm. waaw maa ngi gërëm ku mel ne suñu président Ablaye Diop. Hmm. jàppale na ma bu lool. Hmm. di gërëm ki nga xam ni mooy Matar Fall di gërëm waa kër Baye ñu ngi yëpp maa leen di gërëm. di gërëm sama nijaay nu Badiane. di gërëm Mbaye Badiane. di gërëm kër Pape Malick Diop. Mm. ñëpp maa ngi leen di gërëm. di gërëm mbay di gërëm koñ bay waa yëpp. Mm. maa leen di gërëm. Mm. di gërëm waa Pikine nag. di gërëm ñëpp di gërëm Abdou Ndiaye. di gërëm Ismaël gërëmal Thier parce que pas Thier. waaw di gërëm parce que def na lu nekk pour nga toog fii. di gërëm ko bu bu lekkee alom na ko gërëmee coy. waaw kon maa ngi gërëm Pape Thier bu baax. maa ngi koy gërëm ndax kon moom. <laughs> doomu <laughs> Thierno Ndiaye laa gis mu topp ko nekkoon suqam moo ko doon sotti gàllaa ci Ah, doomu Thierno Ndiaye mais xam nga Thierno Ndiaye aussi moo ko Lamine waaw ah. moo daan tuur moo daan tuur Galaj Pape Diop mm. ah kon mm. ndeysaan kon kéwal du tëb doom jëppal mais déedéet loolu la Thierno daan def Thierno daan nu tuus mm. boo ko fekkoon mu tuus da nga naan mënul reportage ah, waaw la wala léegi euh, laataa may dalal nag xale bi nga xam ni moo xew ci jamono xale bi nga xamante ne ni moo am victoire mbër yëpp di ko dar xale boobu duma leen waxagum turam léegi bu toogee léegi di ngeen xam kan la mooy xale bi nga xam ne mën naa fecc mën naa bëre ba ñu koy méngale ak garaat bi nga xam ni sax moom la am ci làmb ji dafa <laughs> am